waxtaan mu gërëm ñi nga xamante ni internet bi Thiaré Éco TV di fay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh donc euh, permettez di nuyu tous les internautes euh, de Thiaroye donc euh, Thiaroye quand je dis Thiaroye ceux au niveau de Thiaroye gar di de Thiaroye Kaw village traditionnel de mais au-delà de Thiaroye je sais que nous sommes suivis à travers le monde dans le département de Pikine dans la banlieue et le Sénégal de l'extérieur donc vraiment je suis très heureux di vous ñëpp di invitation monsieur Mbaye seen monsieur le maire Mbaye Sène di laajte rek li euh, nga xamante ni moo di baatu Thiaroye yi ngeen jiite li nga xamante ni moo di mairie bu Thiaroye Gare émission profil ngeen ci ànd ak euh, Amadou Gningue euh, monsieur le maire bala ñoo rek dem di dugg carrément ci émission bi tey bu ñu la doon laaj kan mooy Mbaye Sène ana lan nga ñuy toog. waaw ah, Mbaye Sène doomu Thiaroye la rek juddoo yi donc kër gi ñu toog fi laa juddoo màggee Thiaroye considéré Thiaroye mooy sama lépp. donc fii laa juddoo dalalee fi école école Masser Diagne sama waajur bu góor doon jàngale après le CFEE dem collège Masser Diagne donc bañ paree Masser Diagne naturellement dem lycée Seydina Ali Laye donc après lycée Seydina Limamou Laye bañ fa defee trois ans 2002 ñu am sunu bac dem université Cheikh Anta Diop la formation professionnelle dans différents instituts de formation tels que l'école supérieure polytechnique il y a ITCOM e et autres donc génne avec un master en finance comptabilité donc nek ingénieur financier aussi donc lol dal moy à peu près luñ mëna joxé ci présentation bi Mbaye sen mom fofu la yem daal. Euh, monsieur le maire euh, tey jii ñu gis ni gannaaw bi nga xamante ni fi nga juddoo yaroo fi nga xamante ni mooy caaru gaa jàngee fii ba tey nga euh, euh, boobu ana lan moo la motivé pour waaw xam nga l' moom moom mooy moteur euh, d' personne. nit ko amul ambition rek bay boo nga dem toog surtout les plans nag jaamu yàlla bi ñuy jàll jaamu yàlla sax ambition la pour sunu borom fay sunu sunu ay jëf donc buñ dëkkee si gox dëkk fi juddoo fi màggee fi yàlla boole ñu si acteur politique yi ñu xam la mooy décentralisation xam la mooy tey gestion mairie gis caaray du muy doxee bu doxul war nañ mën a doxul man je peux dire que tey ambition pour nekk maire c'est pas une fin en soi nekkul loo xam ne dañoo tëb tëb rek bëgg ko ku fi nekk wallaay azim bu liggéeyoon que serait son avocat vous fi un bilan comme dans d'autres localités que je préfère ne pas citer mais vous fi liggéeyoon ba def bilan man n'est que Baye Falam. mais force est de constater quand même que Thiaroye nous les sax suñu 12 ans ñu fal la maire nous mënoo takk depuis que la maire est là def sax une immigration mais pose de première pierre donc nous sommes amee ñun ñu dëkk un maire qui a fait deux mandats 2009 à 2021 bay a 2022 def 13 ans à la tête de cette municipalité tey fait partie vraiment sur le plan de l'instabilité les communes les plus sales sur tous les plans tey booy xool c'est commune qui date de 1886 commune yu ko wër yëpp mo faire. commune ñeent est la am da ngay avancer wala nga taxaw wala nga delu ginaaw mais tay Thiaroye ku farfalowul deug rek tax la jog ñepp sans exception mën nañ di ka tay ciaro yi avancer wu taxaw dafa delu ginaaw donc lool nak bu amé dañuy taxaw vraiment pour apporter des ruptures apporter cette rupture pour tout simplement changer de paradigme pour que ciaro yi ñu tek ko tay si yoon bo xamni si yoon bu jëm karam lay nekk. Euh, bu ñu la li euh, ngay waxé da fay la sax ci suñu ñettelu question monsieur le maire. Euh, Mbaye Sène tey euh, bu ñu la déggee suñu ñetteel question moo nekkoon naka nga gisee ni nga xamante ni moom lañ yoree caaro yi si juróom-ñaari at yi ñu weesu waaye yow weesu nga ko sax ballaan si 12 ans peut-être ñuy génn tey caaro yi est-ce que euh, sept ans yi am na lu si soppeeku ci wàllu bu euh, li nga xamante ni caaro non moom comme je l'ai rek caaro dara avancé fi a nit def conseil municipal nga am un budget de 200 millions de 2009 à 2014 le président Macky Sall a apporter des réformes avec l'acte 3 de la décentralisation le budget passe de 200 millions à presque 1 milliard un milliard mais actuellement nous sommes à un budget de 850 millions auparavant en 2017 le budget était évalué à 1 milliard donc 7 ans yi y nañ un ni de budget milliards sur tous les domaines de compétences les 9 compétences transférées du maire il y a xam fois gis nga fa ay jógo paradigme c'est paradoxal de voir une commune comme Thiaroye qui a fait des analyses financières et comptables tu vois que est une commune qui a 90 du budget tay dañ ko fonctionnement 10 à l'investissement Si jëlé commune yo xamni tay ñoo ñu sur le plan des infrastructures Dama jël une commune parcelle parcelle manqué wul dara presque mais dañoo jël 62 def ko fonctionnement jël 37 def ko investissement donc boo xoolee déséquilibre boobu am caaro rek day wane ki fi nekk amul ambition mais au delà ambition amul xam-xam. yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa waxoon ñaar ñetti nit sax buñ il faut kenn jiite mais critère bu mu njëkk a teg mooy na am xam-xam ñun nag caaro yi dañoo choisir koo xam ni dans les 52 communes que contre la région de Dakar, Thiaroye est la seule commune qui a un maire qui ne sait ni lire ni écrire. Lolo, ben instant gàcce le su Ni Ni lire ni écrire nag yamul si jang français des fois dañu foog ne xam-xam si français est am. mais nit si li ngay yëngu muy alxuraan sax dañ si am xam-xam mais bu ni lire ni écrire c'est sur les deux langues que ce soit l'arabe que ce soit français loolu mooy ñàkk xam-xam donc tey résultat est véritablement ne peut-être que des résultats négatifs donc j'ai l'habitude de le dire partout sans porter de gang, ni de masque que nous n'avons pas une équipe municipale nous avons une équipe de malfaiteurs puisque tu avons décortiqué le budget on peut pas voter chaque année du 1er janvier au 31 décembre un budget tey budget bi exécuté à 100 alors que sur le plan des investissements qui sont un impact au niveau de la donc loolu bu amee à l'heure du bilan il y a certains maires qui ont ne le livre du bilan les maire ko d'autant plus que la majeure partie des maires qui présentent des bilans ce sont des maires qui ont fait 7 ans contrairement à quelqu'un qui a fait 12 ans donc un réflexe bu njëkk bu mu am taxaw quartier par quartier zone par zone présente le nañ bilan mais malheureusement il est incapable de le faire. D'accord monsieur le maire Mbaye Sène mën nañu tey bu nga doon laaj si si caaro yi 12 ans yi dafa teg benn pas ci kanam benn pas ci ginnaaw wala dafa resté fi mu nekkoon. non caaro yi xam nga tey dugg leen si marché bi depuis tey la 30 juin si je me trompe pas. depuis le 1er novembre les commerçants dañoo déclencher une grève illimitée faytuñu benn taxe xam nga loolu perte ay millions et des millions la. parce que caaro yi moo am marché bu gën a rëy si Afrique de l'Ouest Charo est un marché bu ëpp r 7 si bu commerçant déclenche une grève illimitée cela montre que c'est l'échec partant du maire quelqu'un qui a un budget de 850 millions nga jël 90% fonctionnement 10% d'investissement, c'est 48 millions qui est réservé toute l'année pour les dépenses d'investissement Si vous avez dépenses d'investissement vous avez des dëkk Caaroy nga xam ça veut dire que nous avons un budget qui tout effectif. je ne parle pas dans la voix je ne parle pas pour parler les chiffres je m'ai prononcé ce sont des chiffres mon trésor public ce sont des chiffres qui découlent du compte des actions du comptable donc l'or, le wax ko man millions de dañ koy au lieu de culte alors que moi je suis gestionnaire d'une mosquée depuis que le maire est là aucune mosquée n'a reçu un franc venant du maire alors que chaque année il décaisse 5 millions dédiés aux subventions des lieux de culte tay fait partie des communes les plus sales commerçants grève alors que pour l'exercice 2020 le maire a exécuté un budget de 68 millions pour l'année nettoyage de la commune ñu ni fi dëkk xam fait partie des communes yoo xam y a pas un réseau d'assainissement inondation yi ñu ñëw ngeen Thiaroye en tant que des journalistes def des reportages si le maire dit tey cette année avoir exécuté pour le curage des caniveaux Dès que amul canal nga curage des caniveaux tu as exécuté un budget de 15 millions donc yooyu day wan ni njuuj njaaj liggéey taxu leen jóg bu leen liggéey premier critère bu la gestion des deniers publics la bonne gouvernance mais malheureusement tey ñi fi nekk maire bi boo gisee tey mu toog fi tey poosam moo fi toogloo mais jóg liggéey taxu ko jóg une petite commune comme Thiaroye ñun ñi fi c'est difficile d'identifier 10 travailleurs de la commune alors que la commune a une masse salariale de 157 millions 157 millions amul benn commune yi ñu wër fii dali forcer leur masse salariale tourne autour de 130 millions tey ëpp ñu leen budget Tay ñooñu ëpp personnel donc man motax man ni tout est fictif au niveau de Thiaroye on demande les jeunes les femmes les populations de Thiaroye ñëpp jóg de se débarrasser de sa mal. Euh, monsieur le maire Mbaye Sène dañ lay bàyyi nga seetaan benn micro droit après ñu dikkaat ci émission en tout cas daal pour résumer ko rek mooy l'homme ki gën ci caare ndax ñu ñuy jàppale ci tous les côtés social ci lépp événement bu amee Mbaye mooy def social mooy def lépp loolu jeunes yi ñu soxla fii tam da ciy taxaw def ci lépp. moom li ma ci mën a wax euh, bëri na bëriwul franchement euh, taxawuñu euh, activité taxawoon taxawuñu bu baax a nee nañ nee nañ ku la yee jox la ndékki bu la tegee aaj war nga koo gëm ay ay ay korite ay tabaski yooyu dañuy defal ay sociale yu baax. ñu jàmm nag gis nga suñu kër yi ay voisins la ñu ngi dëkk fii moom mi ngi dëkk fii waaw te olof day wax ne bu fekkee da nga bëgg xam nit baaxaayam da nga koy laaj ña fa dëkk kon moom ñun baax rek lañ xam ci moom ak yaru benn problème kenn. soo amoon question boo ko doon laaj lan lay ban ngeen la am daal si jeune si Thiaroye. xanaa comment elle va faire pour réussir la mairie parce que mairie bi dafa dem ginnaaw trop loolu laa koy njëkk laaj comme question. waaw ndax bëgg nga ci waa Thiaroye rawatina ñun parce que boobu léegi xam naa ñun jógoo ci léegi maa koy laaj la bu jëlee Thiaroye fan la fan la fan la bëgg yóbbu yóbbu Thiaroye daal.

donc euh, amul farfalo amul dara ñom ñu def ay témoignages yo xamni dama leen ci remercier donc euh, dëkkandoo rek du question politique du question dara parce que fi lañ juddoo ñun donc bu ñu ay témoignages di ko def ci man ñom rek ñoo baax. mel ni sas bi mais yalla rek xam nga nit mom loolu koy suñu ay et j'ai l'habitude de le dire dans la commune j'ai l'habitude de le dire que tay mes directeurs de campagne sont mes deux parents. parce que ñoo ñoo ñu fu jur depuis 1963 ñu nekk Caaroy kenn musu leen dégg ñu def lu ñaaw sama papa enseignant la woon fu ma dugg bu ñu kii mooy doomu monsieur Sène nit di dañuy jox une confiance aveugle donc loolu moo tax ma ni fu ma dem rek dama naan je remercie mon père parce que moom mooy sama première tey directeur de campagne sama yaay tamit mu ngi fii yàlla na ko yàlla may gudd fan wér yaram moom tamit c'est pareil de même moo fi njëkk a def natt caaro yi donc moo tax tamit mënuñu teg suñu tànk feneen fu dul loolu donc ñoom la ñu si ñoom rek ñoo baax loolu moom ñu ngi leen si gërëm di leen sant. Euh, tey euh, ñoom ñooñu am nañu ay questions yu yëkkati kenn ku nekk si ñoom laaj la boole ñoom dañ ne ban politique de jeunesse nga am si sa programme. xam nga mairie mën nga am yow mi bëgg a jiite mën nga am des idées mën nga am des projets. mais lepp da lal le domaine de compétence du maire domaine de compétence du maire est lalé de son parce que am les priorités de ne font pas partie du domaine de compétence du maire priorité de- deux c'est l'état de délabrement extrême des routes du domaine de compétence du maire mais yow mi maire da un carnet d'adresse D'où permettre de au niveau des structures étatiques développer certaines idées développer des projets pour que quand même la reconstruction de ces routes qui se trouvent dans une situation extrême c'est ma conviction on ne peut pas quand même investir 700 milliards sur la terre alors que les routes connexes qui doivent nous permettre d'aller rejoindre d'aller prendre cette terre sont dans une situation extrêmement difficile donc là, il faut un plaidoyer de toutes les autorités dans la banlieue parce que Pékin, je ne parle pas de Thiaroye mais Pékin, c'est rare que Pékin Pikine une route vraiment c'est praticable dans toute la banlieue c'est vrai que le président a lancé des projets mais ces projets tardent à se réaliser au-delà de là deuxième priorité c'est l'assainissement l'assainissement aussi ne fait pas partie du domaine de compétence du maire mais c'est le maire qui doit porter ce plaidoyer donc il y priorité une priorité qui beaucoup ci domaine de compétence maire deuxième c'est li nga wax jeunesse Aujourd'hui, loo xam dafa war a bokk suñu de jeunesse et formation professionnelle le maire est en train de construire des maisons de la jeunesse Nous aussi encourager par par avec la fondation le droit à la vie », amoon nañ ay centre de polyvalent yo xamni tabax nañ ko fi ñu inauguré ko depuis depuis 2005 mais amul ben contenu il suffit de faire ben report ben ben ben benn nga dugg ci dëkk bi def reportage laaj ko Thiaroye ba xam de am ngeen centre polyvalent dañu la amuñu ko parce que malheureusement amul contenu donc man luma gëm moy tay ces maisons de la jeunesse doivent être transformées tay à des lieux d'excellence parce que ces jeunes au niveau de Tcharaï, on a l'habitude de le dire ni ñi ñëpp réussir si nous n'avons ay parents ñoo ñu dans d'autres zones si vous allez aux Almadies vous avez un enfant de la banlieue plus un enfant qui habite dans d'autres zones dans vraiment vous savez, une différence sociale Nous, avons un encadrement parental c'est-à-dire une fois des études terminées à l'école. À la maison, vous avez un prof de maths, vous avez un prof d'anglais, vous avez un prof dans tous les domaines. buy ñëw di encadrer malheureusement nous ñi nous, bu nous wàccee suñu nous, nous ñoo koy téye nous, nous suñu Nous bu nous, nous examen nous encadrer suñu nous, loolu dañoo c'est la mairie qui doit jouer ce rôle à bas âge créer des maisons de l'excellence notre objectif c'est que Thiaroye dans cinq ans sort les meilleurs élèves dans les matières scientifiques donc deuxième aspect moi moi, la formation professionnelle am nañ fi ay centre am nañ fi ay centre qui centre polyvalent ça existe déjà Le centre polyvalents, mais le meilleur. fondation droit à la ville moo mais mais may la mais amul contenu donc nous avons ni l'apprentissage au métier avec avec une formation professionnelle et technique moo mën créer de l'emploi moom moo mën a dimbali ndaw ñi ñu am métier donc am nañ centre formation yooyu am nañ des institutions yu fi nekk yoo xam comme comme ONFP et d'autres qui xam ni nga signer ak partenariat dañoo gëm ni on doit mettre en œuvre mettre en exact ces ces structures travailler pour permettre aux jeunes de Thiaroye d'avoir cette formation qualifiante. Euh, je crois que danaa boole sax ñaar si ay questions yoo xam comment faire pour réussir la mairie Je vais vous dee une question La question comment faire pour rehausser la mairie. comment faire rehausser la mairie La tey mairie doit être une gestion de proximité et inclusive Nous avons gëm que Thiaroye fait partie effectivement l'une des communes les plus petites du Sénégal Thiaroye sa superficie est de 1,7 km2 ne compte que 10 quartiers. Donc, ce n'est pas comparable avec une commune comme Djité Commune bo xamné 59 quartiers. 60 voilà, 65 quartiers. C'est pas comparable aussi avec Djamagan Sikambam qui tourne autour de 79 voire 80 quartiers. C'est pas comparable avec Gimbal Sud. Donc une commune bo xamné des ressources parce que 65 quartiers et 10 quartiers, la différence est facilement ça tourne autour de plus de 10. donc gestion gestion de proximité dans chaque quartier nous mettons des CDQ. CDQ nous avons ñoo ñu population Nous avons ñoo les relais communautaires entre le maire et les quartiers donc nous avons fait ko defee qu'on ku que sentir maire C'est sa yëf la du le maire cassé. beneen bi la transparence la transparence sur la gestion des deniers publics caaroy xale bu ndaw sax millions 850 budget day parce que se dit que nan lañ ce budget aussi colossal alors que sur le plan des investissements mënoo ko sentir sur cette même logique sur cette même lancée il suffit d'entrer dans le marché On a les impôt locaux yi qui dispose l'une des communes qui a le plus de marché on te dit que les impôts locaux sont évalués à 136 millions ces impôts tey ñëpp xam nañ ni sont sous-estimés parce que Thiaroye j'en suis sûr certains et persuadé si nous avons un maire bi nga xam ni day ñëw pour liguey kasse un maire bo xamni ñu njaa jiituwul ko mën na génn ci marché Thiaroye 1 milliard. Euh, léegi dañuy dellu si ñëw ak yow ci question bi mujj daanaka mooy rek le dictateur ñu ci ñett ci ces programmes yi nga xamante moom mooy fa nga accès ces programmes yu comme je l'ai dit rek tay les trois axes majeurs le premier moyen bonne gouvernance parce que si vous Nefa, investi fa évaluer investir avec des projets tel tel tel milliards le budget est fi nekk quelle est la situation exacte quelle est la capacité financière de Thiaroye li nga bëgg vous du Nous, ñun avons ni il nous faut un programme juste et réaliste Madame, lo yene yene yene na fekk mu en corrélation avec le budget de Thiaroye Le premier acte du mandat ñu la déconstruction ou reconstruction budgétaire et comptable parce que dañoo gëm ni li fi en termes de budget n'est pas fiable dañoo gëm ni la plupart du budget à 80 est fictif donc la première chose à faire c'est de reconstruire et déconstruire en mettant en place un budget fiable lisible qui retrace les, qui retrace les deniers publics de manière cohérente et de manière transparente. deuxième but, cadre de vie cadre de vie faire un peu de parce que ça fait partie du domaine de compétence du maire Tay, il suffit de voir Télé Diallo les camions super stationnement bi de l'air da lay de que lii jaaduwul nit tay ay lieu yoo xam ay espace yoo xam espace d'épanouissement la espace de culture la espace de sport la mais tey mënuñu espace bu am rek dañ ko war a def marché mënuñu am espace bu am tey occupation anarchique donc yooyu dafa nekk suñu ay priorité donc troisième axe bi mooy tey sur le plan de l'instabilité sur le plan de l'environnement yooyu dañoo gëm ni espace vert yi des bancs publics war nañ mën a organiser la commune gën comme je l'ai dit tantôt les axes prioritaires les deux axes prioritaires yi nga xam ne tey bokk na si ñun stade municipal multifonctionnel fait partie des communes yoo xam ni auparavant toutes les communes qui tournaient autour de cette zone s'entraînaient au niveau du camp de Thiaroye aujourd'hui boo les équipes yoo xam ils sont éliminés au premier tour tel que l'ASC Rakadj tel que la Rochette tel que l'ASC Ramdan l'impact booy faire booy def analyse Ramdaan amul fu muy entraîné day wër tey ñun je ne parle pas de Thiaroye même la zone de Tivaouane Diacksao pour les activités navétanes tout le monde se déplace à Pikine ñëpp xam nañu stade bi Alassane Djigo atteindre cette capacité le stade est saturé donc on ne peut pas avoir benn espace bu nekk ci camp bi Ablaye Wade mayoon ko Thiaroye espace bi Ablaye Wade daf ko mayoon Thiaroye donc tey si militaires yi on les respecte beaucoup mais nous gëm ni séparer les les infrastructures civiles yi fa telles que maison de la femme telles que le centre polyvalent que les terrains municipaux Nous dañoo gëm ni caaro yi dafa war am multifonctionnel bi nga toute la zone je ne parle pas seulement de la commune de Thiaroye Gare fa lañ entraîner donc yooyu yëpp dafa nekk suñu priorité telles que les infrastructures donc l'assainissement donc yooyu yëpp gëm nañ bu ñu yàlla dimbalee ñu ànd ak les force vives de yi en deux ans Thiaroye va changer de visage. Euh, d' accord monsieur le maire euh, Mbaye Sène euh, moom la ñu daloon tey rek li nga xamante ne moom di profil nekk troisième numéro ngi dem li nga xamante ne moo di élection locale yi di 23 janvier 2022 tey boo amoon kàddu yooyu dénk askanu Thiaroye lan lay non lu ma leen dénk rek mooy caaro yi dëkk bu ndaw la Thiaroye dëkk bu xat la. nous sommes neuf candidats élection yi du élection Macky du élection Ousmane Sonko du élection Idrissa Seck du élection Ken. élection Wa Gorbila. L'équipe la changé de telle sorte que surface directe la nekkatul surface indirecte donc je peux dire que en quelque sorte comme aux élections présidentielles les élections municipales aussi sont le rendez-vous d'un homme face à sa commune jarul Kiro, jarul Nyaro, jarul Yakder. La population qui est pour nous, ak nous proposer un bilan ne leur proposer bu nekkee le maire sortant Ne proposer un bilan et ses perspectives bu nekkee les candidats ne ñëw proposer le programme de développement pour Thiaroye donc loolu la ñuy tous les candidats man de je fais partie des candidats yoo xam je suis prêt à signer tous les pactes yoo xam ni duñ saagante duñ waxante duñ wax dara parce que Thiaroye lu cadre de l'union ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi élection yi bu romboy biir campagne fu ñu dajee dañuy joxante respect maire bi nag moi, je n'attaque jamais la maire sur sa personne, parce que c'est lui qui a, qui a la gestion municipale. Je l'attaque par rapport au bilan, et c'est tout à fait normal. donc loolu la ñu woowaa pour leur dire que ouvrez vos yeux Thiaroye ren élection une ñu jëm la Thiaroye de suuxee définitivement ou wala Thiaroye jóg ba faw te jo eh, dañoo gëm ni bu soobee suñu borom Thiaroye day jóg ba faw taal lampe bi wan que tey ay doomam màgg nañ te ils sont ils, ont toutes, les capacités requises pour lever tenir le flambeau yóbbu ko si donc doon loolu daal nous ñuy wax di coalition de sa gox avons sec vraiment toutes les forces vives de Tchare, pour changer de manière drastique le visage de Tchare. Euh, di ko jaajëfal euh, bu baax a baax moom monsieur le maire Mbaye Sène nekk candidat nag ci mairie Thiaroye Gare ñu ngi élection yi ñu dëgmal euh, di amee si janvier le 23 janvier 2022 moom Mbaye Sène di laaj mairie Thiaroye Gare te it di woo askan wi rek ci dal moom ba tey monsieur le maire Mbaye Sène waaye it woo leen ci toog xalaat ba ñoo sànni kenn seen ay xopp